Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyando yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy ci mbiri Karim Wade doomu Abdoulaye Wade bi nga xam ne moom lañ fi doon toppee lu jëm ci wàllum teraanga ju leewul ji ba àttee ko si kër yi daan ko lu toll si juróomi ati kaso amande ko lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards génne ko ci liste électorale yi naka bokk ci élection présidentielle 2019 Karim Wade ko génne ko ay ñooñam ci lan yéenekaay ne jamono ji c'est fini jullit bàpp maanaam Karim Wade mën naa bokk ci ay élection mën nañu ko fal mën naa fale loole ay avocat ñoo ko xamle yéenekaay gii di li Quotidien Témoin Vox Populi ñu xëy di ñu xamal naa ñu doomu Abdoulaye Wade bi di Karim Meïssa Wade jot na jamono ji ay droit civil am ak ay droit politique am maanaam mën naa bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu mal bu ñu sukkandikoo ci ay avocat am yéenekaay gii di Rewmi Quotidien mu xëy di ñu xamal naa ñu avocat Karim Wade yi niki démb daat nañuy wax ne Karim Wade mboolem élection yoo xam ne dañu koy organiser député ci réewum Sénégal Karim Wade mën na saa bokk te kenn mënul tere mu daal di bokk ñoom loolu la ñu wax ndax ñoom nee nañu article L31 moo génne woon Karim Wade ci liste électorale yi article boobee nag di article L31 moo wax ne boo amee lu si juróomi at bu ñu la génnee ci liste yi mën nañu laa dugalaat ci liste électorale yi loolee moo tax ñi layel Karim Wade ñoom nag ñoo ngi sàkku ci état bu Sénégal maanaam mu dugalaat Karim Wade ci liste électorale ni mu gën a gaawee naam nag état bu Sénégal yàgg naa saax-saaxe di Karim Wade yéen a kaay gii xëy di ñu xibaar naan ñu procès Karim Wade bi ay avocat am bëgg nañu maanaam ñu daal di koy attewaat waaye nag am na meneen mbir moo xam ne mu sérieux la te ñu war ko waxtaane ndax Karim Wade mi ay mbiram si boppam moo gëllu góose te ay mbiram dara leeru ci moom Karim Wade ginnaaw ñàkk leeraange gi nga xamante ni am na ci ay mbiram ba ñu génne ko réew mi te kenn xamul lan moo ci xew waaye nag Karim Wade est-ce que am na courage politique ndax 2016 ba léegi Karim Wade munta dugg ci réewum Sénégal Sénégal nag il faut nga am fulla ak fayda maanaam fit woowu est-ce que Karim am na ko beneen bi nag leneen la loo xam ne war nañu ko waxtaane ndax Karim dañu ko amande lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards Karim Wade milliards yooyu daf koy fay wala lan moo ciy xew yéen kaay gi di la sa ñu fekk fa ba Bari Camara professeur droit pénal la nee na Karim Wade génnagul ci mball gi ndax jamono ji ñuy waxee ak yéen Karim Wade maanaam munta fale mënuñu ko fal munta bokk ci yenn élection Iba Bari Camara professeur droit pénal nen loolee mooy dëgg leneen lu ñu leen wax ay waxi kasaw-kasaw la Karim Wade mënul bokk ci yenn élection yéen kaay gi nee na lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci milliards yi nga xam ne Karim war na koo joxe su ko joxewul contrainte par corps moo fay am te mën naa ñëw ñu jàpp ko dugal ko ci kaso bi yéen a kaay gi di réew mi mu xëy di ñu xamal naa ñu da doon xëy ci réew mi ñu tàgg leen député bii di Mame Diarra Fam député bi dañu ko bëggoon a sànk dañu ko bëggoon rey bu ñu sukkandikoo ci moom député bii di Mame Diarra ci Pikine ginnaaw raay waaye nag ki nga xam ne mooy maire bu Pikine ginnaaw raay la ñu daal di tuumal waa PDS ñoom nag ñoo ngi sàkku yoon mbir mi daat nañu Niass mi jiite assemblée nationale ngir mu lijjanti mbir mi yéen kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Abdoulaye Gala Diaw membre la bureau politique bu parti socialiste nee na parti socialiste jamono ji maanaam bu doon tubéy la mën na ñoo wax ñor ga dagg na puusul paasul demul ceng dikkul laa laara parti socialiste amatul ci réew mi maanaam bu passé groupe whatsapp yi nga xamante ni waa parti socialiste fa la ñuy nekk di wax ak a bàyyi parti socialiste jamono ji ak altoppe la yéen kaay gii di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal na ñu lu jëm ci wàllum luubal gi nga xam ne ñoo ngi ko doon wax ci ni nga xam ne moom la ñu yore mbënd meeg xaalis bi nga xam ne dugal nañ ko sa te ñuy wax ne toll na si 767 milliards assemblée nationale daal nay teg ab mission d'information ngir leeral mbir mi yéen gii di réew mi quotidien xëy ci dossier bu garaaw a garaaw nee na am na jigéen ñu bari ñoo xam ne xale yu góor yi nga xam ne dañuy entraîné ba taxaw la xale yu jigéen yooyu di wër léeg-léeg sax da leen di jaral ñu dem ci salle de musculation yi ngir inscrire fa lenn warulu ko lu dina ko jekkee fas yéene faa kolaas ab xale bu góor ba ànd ak moom am na ci ay témoignages yu doy waar yoo xam ne daan na si am ñoom ñoo am faiblesse ci xale yu góor yi nga ne dañoo entraîné ba wow kaay gi délibération ak Sud Quotidien mu dikkal ñu ci agence nationale bi yor lépp lu jëm ci wàllum statistique ak démographie daat nay wax ne lu toll ci téeméer boo jël fanweer ya ñàkk nañu seenub liggéey te Covid 19 bi moo ko waral téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya ak juróom ci borom kër yi la ñu doon am di ko yóbbu seenu njaboot wàññeeku na bu baax a baax yéen kaay gi de la témoin mu xëy di ñu xamal lan ñu coronavirus def na lu dara ci li nga xam ne moo jëm jëm ci wàllum tourisme ak wàllum hôtellerie fédération des organisations patronales de l'industrie touristique maanaam ñoom racine si ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum touriste ak wàllum hôtel niki démb ba dajaloo nañu jooy ba seen xol sedd maanaam wax nañu seen naqar wax nañu jafe-jafe yi nga xam ne maanaam moom la ñu dund ndax nee nañu coronavirus bi tax nañu ñàkk lu toll si ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ñoo ngi sàkku ci état bu Sénégal mbooleem loo xam ne jëm na ci wàllum fiscalité état bu Sénégal daal leen koy jéggal nañu ko tuddee mooy amnistie fiscale yéen a kaay gi la xëy di ñu xamal naan ñu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci lu soxal wàllum hôtel yi lu toll ci junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaara ci ay liggéeykat yoo xam ne soo moytuwulee danañu leen dàq yéenekaay gi de Dakar Times xëy di ñu xamal naan ñu sécurité informatique toll nañ ci jamono joo xam ne maanaam kenn ku nekk war na koo bàyyi xel waaye nag rawatina entreprise yi ak structure de l'État yi espionnage bi bëri na ci réew mi yéenekaay gi de Stades mu xëy di ñu xamal naan ñu Edouard Mendy def na visite médicale ci fi nga xam ne mooy Chelsea lépp moo lépp jaar na ci yoon Ismaïla